ndox digganteem ak daayira bi ci wàll googu mooy sëriñ Abdou Khadir Bousso Anta mi sëñ Jiili Bousso mi moom it mënee su ko ñàkk beral ak cant ndax taxawaay bu rëy rëy boo xam ne am na ko ci dox diggante Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak daayira bi ci liggéey bi kon liggéey bi kat lépp lu ngeen fi gis ginnaaw bi daayira bi amee xalaat mu dugg ci noppub Cheikh Mouhamadou Lamine baara kon lépp lu ngeen fi gis ak nu mën a mel rek sëriñ Bara mu sëriñ Chouaïbou moo ko fi def ànd kook ñi mu ko àndal ak techniciens yi nga xam ne ñoo ñoo yoroon liggéey bi loolu it kon dafa mat a leeral ci tàmbali bi ñi nga xam ne ñoo teew ak ñi nga xam ne ñooy seetaan kon nag liggéey boobu incha allah lañ fas yéenee daloo ci teewaayu kilifa yi kon nii lañu ñu fas yéenee tërale kàddu gi ngir ñu tënk ko ngir balaa tusbar mu mën a mat dana ñu jox sëriñ Fadilou Mbacke sëriñ Fallou Bousso mu sëriñ Thierno mu wax ubbi kàddu yi rek ci solos def lu baax ak yeesal lu demee nii su noppee ñu jox kàdduk sëriñ Baara sëriñ Abo moom sëriñ Modou Habib su noppee ñu jox sëriñ Afia Boussa bi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma euh, sëriñ Saaliwu Jaxate yëkkati kàddu ci tuuru daara ji ak ñi fi ñi fiy jàng ñi fiy liggéeyee ak nit ñuy doxale su noppee nag sëriñ Mbàkke Abdourahman moo yor kàdduk sëriñ Alxaaji Mbàkke Jaxate waaye bu yëkkatee kàddu ba noppi ñu jox docteur docteur Xaadim la mu def ci ay taxliq xam naa sax ku mel ne sëriñ Cheikhouna Alaj Baara tamit mi ngi fii waaye bu kàddu yooyu noppee nag ñu jox àll Aliou kàddu bu mujj gi mu yëkkati kàddu daal di ñaan xam naa su fekkee ne tënk nañ jàpp nañ ne kàddu yooyu yëpp dana mën a xaaj fii ak tusbaar incha allah kon Cheikh Amadou Fadal bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni u'izuha bika wa durriyataha min asheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nuyoo boobu ñoo ngi ciy jiital a seex Muhammadul Muntaqa xafisahullahu wa raahu di ci toftal mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoo toog ci jataay bii te sëñ Abdul Ahad bu so tudd leen fii ñoo ñëpp ñoo ngi leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di wone ñoo ngi ci barab bu tedd nag ndax buñ nekkee ci Tuubaa rek doyoon nag tedd nga waaye ci biir Touba itam buñ nee ñoo ngi ci biir jumaay Touba loole itam doyoon na tedd nga ci barab bi waaye buñ nee ñoo ngi ci jàngukaay bu mag bii nag di daarul maarifil islaamiya loola itam nag da koy gën a yodda yokkaat tedd nga ak wàccuwaay di jàngukaay boo xamante nag maddat juzuraha fi axwaari taarix mooy xëy na ak dundam boo ko na natt ci histoire du gudd waaye ay jëfam nag rëy na lool ci biir société bi rawatina ci fii ñu nekk ci biir Touba ak li ko wër ndax ñooñu fi jànge te kilifa gu tedd gi jàngal leen muy alxaaji Mbàkke Jaxate ñuy ñaan yàlla yàggal ko fi lool te may ko fanu gudd ak wér ba yan bii nga xamante ni mi ngi ko yen woon ci ndigalal kilifa yi mu dem ba am ñoo xamante ñoo ko ci wuutu ci ak njabootam ndax ñoo ñëpp nag ñu ngi ci te nit ku baax ku nekk nag loolu la doon ñaan mooy li nga yenu ci lu baax moo xam ngay ab yónnent wala ngay ku baax boo demee ba tële ca nga am ñoo xamante ni defar nga leen bañ mën a yenwaat loolee te loolu yaakaar nañ ko ci njaboot gi ndax ñi ngi ci loolu la yonent yàlla ibrahima dénkaane woon ci wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum diin fala tamutunna illa wa antum muslimun ak am kuntum sohada id xadara yaquba al mawtu id qaala li banihi ma taabuduuna min baadi qaalu naabudu ilahaka ba aaya ja jeex lu baax loole kon nag di jàng ak jàngale ak yare moom la alhaaji mbakk jaxate mi nekk bañ fekk si ko fii ci liggéey boo xamante ni moom la ñuy wa nii ko sëriñ Abdou Lahad waxee nit ku baax itam nag bokk ci ñu baax xam ne war naa jëf lu baax muy sëriñ Baare moom sëriñ Sohaybu moo taxawee liggéey bii daf koo def ngir liggéey lislaam daf koo def ngir xam ne maamam lii la bëggoon daf koo def ngir xam ne way juróom sëriñ Sohaybu lii la bëggoon waaye daf koo def tam ngir xam ne war naa am taxawaay ndax lu la ay nit mën a meññ itam yow itam war ngaa xaw a xam ne war ngaa liggéey ba fañ yeggoon boo fa yëgut itam ñëpp xam na ne jaar nga ci jéego yooyu waaye daf ko def itam ngir xam ne def lu baax ak liggéeyal jullit ñi ci loo xam ne ñëpp ko waroon def nga wuut leen ca mun te ñàkk ci ku bëgg am ci kër ak dëël yu mag yi sunu borom doon diggee muy aljanna ndax maamam di abdullahi wa xadimu rasulillahi mi ngi wax ci masaalikul jinaan naan di wax importance su liggéeyal jullit yépp ci loo xamante ni da cay xalaat yàlla rek ak fay yàlla waaye doo ci xalaat sax fay ak àdduna ni amee solo wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawa wal gumma naada munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumaruuna lil jinaani musrain bi an yuqaala lahum dul janna bi xayri mihnatin wa xayri fitna nee na ëllëg bis penc su teewee ñu fab seraat tëral ko muy ab pont ca kaw sawara ñëpp jàq ñëpp tiit nee na foofee la sunu borom di sàkk ab kat mu ne nag ana ñi daa liggéeyal jullit ca di ko def ngir jëm yàlla ana ñu ne ñoo ngi nii ñu ne wéy leen tàbbi aljanna du ngeen taseeku coona du ngeen taseeku fitna kon loole ku ko dégg da roy ci jéego yi nga xam ne moom la Sëriñ Baara def ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér-gu-yaram di sant nag daayiratu muqaddamatul xidma itam ci seen liggéey bi ñuy def ci biir jumaa ji di ñaan yàlla ndigal lañ amoon ba di ko doxal sunu boroom defal leen ci lu kawe jort rafetlu lañ lool seen liggéey di ñaan ci mujjantal gi nag daara ji lu fi waay jàng sunu baram barkeel ko te yokk fanu sëriñ alhaji Mbàkke jaxate mii yokk fa fanu njabootam te njabootam yaatu na ndax ñim jàngal ak njabootu boppam a ngi ci sunu borom yokk seen fan ak wér jàngukaay bii mu yegg foo xam ne ak kawe na kawe na jot am ci ngërëmal ña leen ko dénkoon digaloon leen ko te itam tuyaaba ñu itam ñu tasaare ko ci biir senegal tasaare ko ñoo ngi jég aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ala sayidil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen siyaara di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi buñ ci tuddee sëriñ Xaliyu Mbàkke moom Cheikh Mahamadou Fadal ak sëriñ As Jaxate moom bi nga xam ne mooy njiitul barab bi mel na ni tudd nañ kilifa yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mouhamadou Lamine moom sëriñ Souhaïbou moom mi nga xam ne moo doon taxawee liggéey bii am ci yéene lool mu boole ñu ak sëriñ Abdou Lahad Bousso ak sëriñ Bara so ak sëriñ Moustapha nee na mi ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare gannaaw ba mu ci jiitalee Cheikh Mouhamadul Mountakha ak kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi ñëpp xëy na sax kàddu yi du jar muy gudd ndax sëriñ baara bi ñu fi yabal moom dafa sàkk woon rek ñu teew fi ndax soxlu wu ci woon sax ay kàddu ndax lam njëkkoon a wax mooy du jar sax mu fi teew wala mu fi yabal kenn ndax ku xam sëñ baara ak doxinam lépp lu muy jëf wala lépp lu muy def rek danga xam ne bu sañoon lépp ci sutura lay doon ndax noonu la ko suñu borom bind amut lenn lu muy def loo xam ne nit dana ci teg bët walla nit di ci xam dara lépp noon lay doxee ci ay mbiram noon nag noon la ko tàmbale fee ci kër kër sëriñ soin bu am fa ay taxawaay lool yoo xam ni ñaare ku dul ñam ko séqal rek mën nañ cee bañ a xam dara noon nag nda def ba agsi ci barab bii yàlla boole ko daairatu muqaddamatu xidma ñu am ak jaxasoo ci liggéey lu bëree bëri ñu ci waxtaan sëriñ Baara am yéene lool ci liggéey bi ànd ko ñoom moo tax biñ ko xamalee taxaw barab bii li nga xam ne laaj na ko ci ay liggéey moo taxit mu doxe ci nii ba liggéey bi agsi fii kon nag nee na mu ngi sant daaira muqaddatu muqaddamatul xidma ci boole gi leen suñu borom boole ñu ànd di liggéey ci barabu tedd bi nee na nag mu ngi ciy beral bu baax ak cant sëriñ jiile mi nga xam ne moom ngeen ko booleel yàlla dogal na nee na lépp lu muy def rekk bu ci waxtaaneek moom sëñ jiir xalaat yu baax la koy jox yoo xam ne buñ ci tënkoo rek dana tax lam bëgg mu am ko nañ ko bëgg te itam nee na la ko ci gën a ñor ci doxinu sëñ ji li mooy sutura si nga xam ne dana ko am lépp lu muy séq ak moom nee na du dox ba déggaat ko fenn ak lu mën a doon kon nag nee na yéen waa daayira sëriñ Baara mi ngi leen koy seereel bu baax ne rëcc wut da ngeen ko doon booleeg sëriñ Jiili sant na leen ci bu baax a baax ci loolu it nee na mi ngi ciy sant bu baax ñi mu àndaloon liggéey bi ndax liggéey bi bi mu ko taxawalee lépp li ko liggéey ba mu agsi fii mu ne entreprise bi mu yor la moo na liggéey bi lépp ñoo ko def te yàlla dogal na ñi mu àndal liggéey bi ci entreprise bi ñëpp ay mbokki taalibe la yu ko suñu borom booleel ñu ànd ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñëpp moo leen tàggat ci liggéey bi toqi leen ci ba lépp lu muy def rek mook ñoom ñoo koy ànd nga xam ne amut lenn loo xam ne jéggaani na ko fenn nee na lépp lu lu ngeen fi gis rek ñu def ko lu dul wàllu courant bi nga xam ne xëy na bëggoon na ci mu mel noo xam ne benn njuumte du ci am lu dul lool rek nee na entreprise bi nga xam ne ñëpp ay mbokki taaliba lañ ñooñ la àndal liggéey boobu kon nag nee na mi ngi leen koy seedeel ci ñaan ngeen ñaanal ñoom ñooñu lañ am yéene liggéeyal Serigne Touba yàlla yombalal leen ko ndax am nañ yéene lool am nañ yeneen yéene yu gën a kawe yi sax kon nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu ñaanal leen bu baax fa mu bëgg àgg ak ci liggéey Serigne Touba bi ak la bëgg rek suñu borom yombalal leen ko lépp ñu dem ba taxaw yeneen liggéey yu gën a kawe yi kon nag Serigne baar nee na mi ñu sant ñëpp di leen gërëm di gën a feddali bu baax ay cant ci daayira muqaddamatu xidma ci seeni taxawaay ak jàppale gi ñu koy jàppale ba li mu yéene lépp ñu ko ci yombalal ba mu defe ko ni mu koy bëgg kon nag du ñu guddal kàddu yi ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi am mbegte bu baax e, di sant suñu borom bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jéglu ci kàddu yi ñuy yëkkati ci suñu kanamu kilifa yi e, daanaka kàddu daara ji sax bi ñu jiitalee ci sant bi di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha suñu borom gën ko fa yàggal ci wéral ko waaye di jaarale ñaan yooyu ak cant yi nag suñu kilifa gii ci suñu ginnaaw muy sëriñ Aliou mi ko fi teewal teewal fi mbooleem kilifa yi fi yi fi masoon a jaar ñëpp di jaarale siyaar boobu ci sëñ Moustapha ak euh, waa kër sëñ Mamoun moom moom sëñ Fàllu yi ñoom ñoom sëñ Fàllu ñu ko fi teewal euh, euh, ginnaaw loolu di sant bu baax waa daayiratu Muxaddamatul Xidma ci jëf ju kawe ji nga xam ne àndoon nañ ko ak nun ci liggéey bi ni ñu ko xamee euh, daara ji ma ci turu daara ji sax sëriñ Mbàkke ak suñu yeneen kilifa yi ak sëriñ docteur danañ wax ci turu sëriñ bi euh, sëriñ Xaasim it bokk ci magi daara ji waroon a teewee jataay bi yàlla def mu am gànt ci yeex gi agsi waaye teewut Baye Cheikh Boussa mi ngi fi ak euh, Baye Xaadim Ka ak yeneen kilifa yi daara ji daal ci mag magi daara ji ñu ci bari ñu ngi bi ñu tàmbalee liggéey bi it ni ñu ko xamee rek daara ji sëñ Mbàkke Bousso moo bind wax ne sëriñ Tuubaa bi mu fiy jógee ñett la bàyyi ci ginnaawam ci mbiri àdduna ci li xam muy dem gi màkk ak jumaa ji ak jàng boo xam ne day nekk tabian lil masjid bi Cheikh Mamadou Fadal suñ borom defal ko tawfeex ci suñ boroom defal ko tawfeex ci naali sëriñ Tuubaa yooyu Cheikh Cheikh sëriñ bu Bousso tuddoon yëpp suñ borom defal ko ci tawfeex ju rëy bi yàlla dogalee liggéeyu jumaa ji noppi 7 euh, juin 1963 mu tijjaale daara ji tudde ko kërug xam-xam biñ demee ba euh, octobre 1963 euh, mu yokk ci ñi doon jàngale boobu fekk na sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate nijaayam doon fi jàngale muy sëriñ sëriñ bu sey limaan bi mu ñëwee ba agsi moom nett leen boppam histoire bi yooni yoon bi mu ñëwee ba agsi ci moom it sëñ mi jox ko ci ndigal mu tuddee ko daarul maarif maanaam mu arabal këru xam-xam googu tuddee ko daarul maarif al islamiya ñu bindoon ko ci ñun ñëpp ci ci suñu xàmmee bi ñu fi ñëw moom lañu fi daan fekk yàlla def nun ni fi teew ñu baree bari ci ñun fi la ñu njëkk a waxee xaala wax na lay tekki ba na nga tàmbalee bind di di ko di ko joxe ci béréb bi la amee bi waa daara ji ñëwee léegi nii rek ñoom bi ñëwee dañoo saytu daara ji cosaanu daara ji ni meloon mooy niñ doon jàngee ci jàngu lii di bi fi nekk ci tooguwaay yeeg biñ ñëwee daal di xool yebal fi ingénieurs yi ñëw ci bisu jàng xool ñiy jàng fan la xalxa yi nekk mooy ni ñu tegaate ba ngi nii cosaan lii it léegi nii rek ñi ngi ñuy wan lettre boo xam ne ci loxob Seex Maodo Fadal la moo ko bind jox ko suñu maam suñ bu Souleymane di ko di ko ci laaj téere bu usdul xaaba fi maari fi maarifati sahaaba ne ko xoolal ma ci téere yooyu ci jumaa ji téere bu ñu wax usul xaaba fi maarifati saxaaba euh, yaakaar naa bu ñu xoolee bu ñu dallee lenn ci irda u euh, irda u sadiqil xamim danañ gis bu baax a baax cosaanu euh, maktab bi fi nekkoon nan la ko borom téere ba leerale kon ñu ñëw yeesalaat daara ji ci cosaan la mooy ñu dara ci li fi nekkoon waaye dañ ko def ba mu ndax xam nañ ne fii léeg-léegi am na ay ab diggante boo xam ne ci ku fiy liggéeyee xam nga ne Pastef moo la fii tax a yàgg waaye ci lii tax doomu aadama sawar ca béréb bu muy liggéeyee mën faa yàgg euh, daana xaw a daana xaw a xaw a xaw xaw a yéeme tuuti léegi nag yaakaar naa ku fi liggéeyati moom doo yàkkamte doo yàkkamte noppi euh, dana dana dana sawarloo daal ci ñi fiy liggéeyee bu ñu ñëwee ci béréb bi ñu mën fee yàgg ñu mën mën fee am diir def li ñu war a def lépp ba mu mat ñu doog a dem kon loolu moom ci béréb bi sëriñ bi sax dem bi mu fi njëkkee ñëw dugg si xool ko rek dañuy ndax Eh, xàmmenti naa fii fii mooy fi ma daan jàngale wala faneen lam det bi mu ñëwee démb loolu la wax ci kanamu sëñ jiil mi kon loolu moom eh, cant gu kawe la ñu xam ne bëgg sëriñ Tuubaa la gum bàyyi woon ginnaawam sëñ Mbàkke sa bind ko mag ñi bind ko sax Amadou Fadal jëmmaloon ko ci ni tolloo woon ak dëkk bi ci jamono yooyu ci population bi ni mu tolloon ba ni ko sëriñ bu mag bi fi nekk yaatale ba mu gën a nekk yenn ni daara yu gën a yaatu ñi fiy jàngee fii wax dëgg tàngoor daana fi daana fi ak béréb bi bu ngeen laajee ñu yore fii sécurité ak yu bëree bari léeg-léegi ñu leen daan woo ci enn yi te yooyu yëpp mel na ne liggéey bi dana ko dàq dana tax mu mu dàq fi ñi bokkal di fi nekk kon nag suñ jili mi ngeen ñu booleeloon nit ñu ngi koy sant bu baax ndax moom lépp wax dëgg yàlla moom moo nekkoon Hamzatou Waslu daayira bi ak ak ak jëmmi daara ji ci liggéey bi waaw toujours day xool ni jàppe ne nii la nekke woon mu fexe noonu nan lañ koy defee noonu ba pare dëppalee ko nuy tax nit man fay liggéeyee man fay yàgg ca loolu ñu ngi xam ne dañ fiy liggéey bi set seenu seen mooy seen métier daal fi la xëy di fi kii xam nañ ko bu baax a baax lool it euh, gis nañ ne ci yi gën a dëppoo ak jamono fi qualité bi liggéey nekk fi la fi la toll moo tax ci turu daal ci turu ñun ndongo yi fi nekk ñoo ngi sant bu baax Cheikh Mouhamadou Lamine mi nga xam ne moo àndoon ak daayira bi liggéey bi euh, di ñaanit ci barkeb sëriñ bi suñ borom gën a gën koo defal tawfeex ba nii Cheikh Saliou daan wax naan Serigne Touba moom ku mu bëgg a ku mu liggéeyloo rek daan la jox ay jumtukaay yoo ko kon ñu ngi rafet njort bu baax a baax ne ñi ko doon def ñaan googu Cheikh Mahamadou Fadal ñaanoon te ñaanoon ko ci biir béréb bi wa jaal liman banaw binaaha rafia wa jaal liman amarahum bihi jamia wali jamii man aanahum ala binaika alladi bi fadlika atala kon yaakaar naa ne lu yaakaarul la lool suñ borom defal la tawfeex yi nga mën koo jëfal ci jumaam ji ndax Serigne Touba moo ko ñaanaloon boppam Cheikh Mahamadou Fadal mënu ko li ñu def lépp it cosaan li mi ngi fi wane nañ leetar yi yi wane ne maktab bi fii la nekkoon ci ci mbindum Cheikh Mahamadou Fadal sëriñ bi daaw la doon feetu juróom benn fukki at yoo xam ne musta dagg ab liggéeyam fii ci béréb bi ñu ngi sàkku nag ci mbooloo mi ñëpp ñu gën koo ñaanal mu yàgg fi ndax njabootam gii fi teew ñëpp di ànd ak moom liggéey bi ci biir liggéey bi lañ gën àdduna ñun ñi fi teew ñëpp nag ci fi biir jamono yi mu nekkee fii lañ fi gën àdduna ba ñooñu ñëpp samp nañ kër waaw ba ki ci gën a euh, féete ay atam gën a néew samp na kër te it yàlla defal na ko tawfeex li war ci ñoom ñëpp ci lu mënta ñàkk lii tax ñu mën fee toog it suñu borom dimbali na ko ci te ñëppay xëy si it ñëppay xëy si ñi ci nekk di yore ay yeneen activité yu aju ci àdduna it waxtu wu ñu fanaanee ci dëkk bi ci dëkk bi dañuy xëy su ba ñëw même boo nekkoon sa beneen bérébu bopp yi da ngay xëyee foofu ñëw jàngale si daal doog delluwaat loolu yàlla defal na ko ci tawfeex bu baax a baax ba àgg na ci it am na ci loo xam ne jëru sax di kii kii waaye euh, lim man lépp mi ngi koy def ndax ci ci turu daara ji léeg-léeg sax mu jële fi ay nit yóbbu leen penku ñu koy jàppale ci liggéey bi loo xam ne moo koy defal boppam moom moom sëriñ bi kon nag ñu ngi koy sàkkul moom it ñaan loolu lépp yi ma Sëriñ Tuubaa rek la ci la ci la ci la ciy dàkk mënoon naa yem ci rek ne maa ngi jàngale sëñ bi di ma fayal boppam ni mu koy nettalee moom léeg-léegi di nettali suñu ku tedd xam ne neen bu ko masaana laaj naan ko nu li ñu war a jox ku fi liggéey mu ne ko du ñàkk day jaare ci yow moo tax ak seegut euh, loolu lu ama am solo la ci la nekkoon ba lépp fekk ko ci ba ñu ko ci jàppale ñëpp it rëccuwuñu taxoon ñu ko ci jàppale euh, kon nag ñi ngi sant bu baax di jégalu ci kàddu yi ñu guddal bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi ñi ngi nuyoo tey ziar di ànd ak xol bu sedd ak mbégte ci teew ci béréb bi nga xam ne nii ko mbokk yi waxee ci béréb yi sëriñ Tuubaa yi la di tàmbalee nuyoo ziyaare nag ci sunu kilifa gii di sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate ñaan sunu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral ndamul lislaam la mbégum sëriñ bi la ni ko sëriñ yu waxee léegi 63 ba léegi at yu bari la juróom benn fukki at yu teg ku ko nekk ci benn barab di liggéeyal yàlla ba am ay meññeet yoo xam ne tey fu ne ña ngi fay wane lañ doon loolu wane na ne liggéey bu ñu yàlla barkeel la liggéey bu ñu gërëm la kon kàddu gi ñuy yëkkati ci trom di ko seex ak docteur Serigne Khadim Sylla mais nga xam ne kenn la ci dongee daara ji boo doon lim fii ñi jaar ci daara ji doo tudd ku ñu xam ci dëkk bi te mu am solo lool te doonu dara ci daara ji kon liggéey barke ni ko ni ko sëriñ alaaji Mbàkke di faral di waxee wane ne moom ñaan gu nongu la ñaanu ndax na ku sëriñ Fall waxee woon na ko sëriñ Tuubaa daa ñaanoon ma bëgg nga jëmmal ñaan ba wallahi jëmal na ko sëriñ bi daa ñaanoon ne wajalhu daban maskana taallumi wa mawdia al fikri wa tafahumi barab bi li fi jaar ci ay dong mën nañu wax bu ñuy wax ab université fii la tàmbalee université bu gën a mag mooy bii mbooleem université yi ñu def bi tey ñaar yu mag a ngi fi sëriñ ak bu mu jamono Cheikh Ahmadul Xadim bu Cheikh Ahmadul Muntaxa bi waaye ña ko taw ci daara ji lañ jógee kon muy liggéey bu yàlla gërëm liggéey bu yàlla barkeel kon nag bu amee ay mbokk yoo xam ne ñoo ñun ñoo bokk yem ci daara ji ñu am xalaatu ñëw defaraat daara ji ba ku fi dikk xam ne euh, barab bu ñuy amee ngërëm la yàlla na yàlla fay leen te sàmm leen ñu am tawféex lañ nag ndax barab yu mel nii ku amul tawféex mënoo fee liggéey kon ñi ngi sant bu baax ci turu sëriñ bi daayiratu Muxaddamatul Xidma ak sëriñ Mouhamadou Lamine mi nga xam ne ñoom la ñoom ñoom lañ ko àndaloon ba liggéey ko liggéey bu mucc ay bii delloo si fii li fi nekkoon mi maktabatu bii nga xam ne mën nañu wax ne mooy maktabatu si amul xadim bu njëkk euh, loolu ñu waxit jàpp naa ne mbooloo yooyu fas nañ yéene ñoom itam bay seen waar ba téeri for bu nekk fi ndax loolu lu rëy la kenn defalul sëriñ bi jamono yi ñu toll lu gën taxawal ko fii ndax barab bii fi la ñuy defaree njaboot gi mooy barab boo xam ne ku fi mas a jaar ni ko sëriñ bi waxee te nangoo tënku ci lam lay tënk loo fi am dana barkeel te loolu ñun ñi newoon ci daara ji kenn ci noonu ku ci noonu mën na ko seere ku ne ci noonu mën naa seere loolu ci fa nga nekk tey jii kon loolu day ñaan yàlla mu gën a yàgg gën barkeel di sant bu baax kon daayira bi di leen ñaanal yàlla barkeel seen liggéey yokk ko am rafet njot ci yeneen ndax yi taxawaay yu mel nii moom ku amul tawféexi suñu borom mënu ko am kon mel na sëriñ bi gërëm na leen lii ne ko sëriñ alhaaji di waxee nii xolub sëriñ Fallou sedd na ci ndax moo sosoon daara ji ba jumaa jàggee ngir mottali mébétum sëriñ mag bi daara jooju tey jur ay daara yu dul jeex jur ay université ba tey ji teewut kilifa gi toog fi di jàngale njaboot jépp di xëy si di jàngale ni ko sëriñ Saliou waxee loolu ñaan ko nangu la kon yàlla na gën a nongu gën a barkeel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, yéen mbokk yi fi teew yëpp ñoo ngi yëkkati kàddu yu ak siyaara eh, di ko jëme ci sunu sëriñ sunu kilifa alxaji Mbàkke Jaxate waaye di yëkkati nuyoo ak ziyaara yi di ko jëme ci sëriñ Aliou Mbàkke Muhammadul Fadal ak bokki yi teew ci barab bi yépp ci bis bu mag bi nga xam ne nun ñi jaar ci daara ji yëpp amul bis benn bu ko gën a màgg gën koo rëy ci nun kon ni ko sunu rakk sëriñ Mbàkke Abdourahmane waxe barab bii mooy ndey jàngukaay yu mag yi nga xam ni moo sosu ci at yu mujj yi ci dëkk bu tedd bii di Touba te bi ci jëkk bi ci mujj di mu jàmmaa bu Cheikh al Xadim bii loolu lépp nag di gàttandu ñaan goo xam ne boroom dëkk bi di Cheikh al moo ko ñaanan waaye nekk ndénkaanit lu mu fi bàyyi woon muy barab boo xam ne nag fa tabaarakallaahu barkeb boroom wala Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo ko santaane woon wàcc na ci bu baax a baax ndax ni ko sëriñ Mbàkke Abdourahmaan waxe mboolem ku fi jaar rek e, barke boobu topp na la e, nun ñii jamono yiñ fi nekk fekk na sunuy mag sëriñ Xaadim Ka ak sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Bousso ñoonu ñooy ñi lu jiitu ñun sëriñ Mamor bu Cheikh Mamadou Fadil lañ fi dajeel mu toll ci moom di jeexal waaye ñi fi dajeel dëgg dëgg daal bokk ak liggéey bi moo di docteur Ahmad Lo ak Ibrahima Khalil ak sëriñ Afia ak sëriñ Afia Ñang ñoom li ci ëpp ñoo daan bokk ay téere eh, yu nuy yu nuy yu nuy jàng ak ñeneen ñu baree bari nag ci e, njabootu yoon wi e, muy loo xam ne néew na li fi xew e, ci barab yoo xam ne yi mel nii yu mu xewee muy barkeel gi ak itam tawfiix bi boroom defal sëriñ alxaaji Mbakke ndax ban ko xamee ba léegi ba mu laxasaayoo dugg ci barab bi ci ndigalul kilifa gi ba léegi tekkiwul ak laxasaayam doonte am na ñu mat sëkk ñu doy sëkk ñu ko ci wut kon nag dañuy yëkkati sunu kàddu ci turu mboolem njaboot gi jaar ci daara ji yépp ñi fi teew ak ñi fi teewul yépp di yeesal sunu cant ak sunu jaayante ak sunu sëriñ bii di alxaaji Mbàkke jaxate ci lépp loo xam ne luy dundal barab bi rek te maanaam nu am ca benn xalaat danañ ko fas yéenee ànd ak njaboot gi bokk na ci nag lii nga xam ne moom la sëriñ Abdul Ahad Bousso wax loolu moom ñëpp a ci war a taxaw kenn ku ne tobbil ci sa bopp sa su bopp muy muy bibliothèque bi ci boppam buñ ko yemee rek ci raabita boobu waaye e, rawdu rayaxiin lam am lépp la ko andi e, waaye wafa bu daarul moxti lam am na ko andi waaye mboolem nun ngi fi jaarani kenn ku nekkit na nga sasu ci li nga mën a e, toppatoo ci sa pexey bopp nga andi ko ala kulli alin ñi ngi sant bu baax a baax sëriñ bi di yeesal sunu cant di ñaan sunu borom wuutu ci fayal nu ko waaye feqal nu nag aw fanam ba mu dund téeméeri at ak topp tam ànd ak wér ku ngeenu ci liggéey bii waaye ni ngi sant itam nag uh, sunu jarbaatu bopp di Cheikh Mouhamadou Lamine bu Cheikh Souaïbou mi nga xam ne tey moo taxawee e, liggéey bi ànd ko ak bokki taalibe ñu ngi koy sant ci turu mboolem ñi jaar ci daara ji yëpp xam ne lii kat nun ñi daar ci daara ji nun la ko defal ndax wax dëgg yàlla e, nun noo waral a jiitu ci lii dëgg yàlla nun ñi jaar ci daara ji jàng ba noppi kenn ku ci nekk yàlla jox la ab cër fa nga nekk e, jafal la ay teraanga wallahi alasim noo war a jiitu ci lii xam naa nag dafay am mbir yoo xam ne leen lu ci nekk kañ ko dencal moom e, ab cëram la boo xam ne kenn mënu ko caa wuutu waaye nag ab soññi la bokk ci nun ab soññi la nag ñu taxawaat ci daara ji ñun ñëpp eh, bàyyiwaat ko xel ci leneen yi nga xam ne yëpp moom la aajowoo ci ay jumtukaay yoo xam ne yu dëppoo ak doxiinu jamono loolu lépp lu ci waaye am rek nga indi ko kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rahmaan rahim wasalaatu wasalaamu ala asraf anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi Euh, ñu ngi am mbégte ci teewee jataay bii ci ndigalul sëñ Aliou di ci am nag ay cër yu bari ndax cër bi ci njëkk muy cëru bokk ci ñi nga xamante bi fii lañ tàmbalee seen jàng diggante 1977 ba 1980 kon loolu defe naa ne ñàkkut ñu am fi ay fàttaliku yu bari te ay firnde yu bari ci niñ ko fi waxee nga xam ne yàlla barkeel na barab bi ngir lim doon nangu ñaan lépp yàlla may na ko la yàlla euh, jaarale liggéey bi ci moom mu Cheikh Ahmadou Fadal te euh, sëñ Alhaji Mbàkke mi nga xamante bi moom suñ lépp la ndax tey mën naa ne ci sunu bi ñuy wax euh, ci ak bopp am na fa foo xamante ne bii fi mu toll ñun ñëpp moo fay suñu kilifa ku xam liñ bokk moom rek euh, kon dina war a xam loolu ndax kenn ku ne réere wut ne euh, lim bokk ak Cheikh Abdou Samad ak soxna Momin ak Maymuna ak Cheikh Abdoulaye Cheikh Saliou ak Cheikh Chouaib kon loolu muy casquette bu njëkk bi ñu am ci ay fàttaliku nag yu am solo yoo xamante ne bii ku fi jàng da nga fi jànge maanaam mën a góorgóorlu da nga fi jàng itam am am li nga xam ne mooy assiduité ndax loolu mooy waral ne euh, bari na ñoo xamante ne mën nañoo nekk fi barab sax waaye bu la neexee ñu ñëw tey bu la neexee du ñëw bu la neexee ñu def waaye moom bañ ko fi dëlee ba léegi keroog bi ñu ubbi jàngukaay bi bu mag bi nga xamante ne bii mooy jaamia bi kenn ku ne gis nam ñëwee ñëwee laxasaayam kon loolu wane na ne kon moom laxasaay gi dindiwu ko maa ngi fàttaliku ñun bañ fi daan jàng euh, buñ julee fajar ba noppi balaa tàmbalee leer ñun lañ daan ñëw am na ci ñoo xamante ne ña baaxoo di ñëw ca waxtu woowa nga xamante ne bi am na ñoo xam ne xëy na yor-yor lay ñëw ñoo xam ne nanga nanga am na ñoo xam ne sax ko fekk ñu ci seen waaye ñun ñi nga xamante ne bi euh, balaa leer ñu ñëw ñooy bokk ci ñi njëkk a jàng ñi ma ci fàttaliku rek mooy sëñ Jiili Buso moom seen Abdou Samad ak sëñ Abdou Laat moom moom sëñ Mahamadan ak ñeneen ñu bari gis naa ne léeg-léeg ci at mi benn yoon wala ñaari yoon yi nga xamante bi xëy na waxtu wam daan ñëw maanaam am na ca euh, ngant ñun lañ daan tànn ne nañ dem jëkkër kër ga fekk ko fa nga xam ne bis bi bu ñuy wàcc lañ ñu koy wax ñun ñu xëy kon loolu ku ne xam ne ne loolu ay ay fàttaliku la te itam ay mboolem ñi fi jaar ñëpp kenn ku ne gis na ne maanaam barkeb njàng mi ci xam-xam bi maanaam ba mu juraat ay daara yu bari kooku kenn nattablu ko kon loolu ñu di ko ñaanal yàlla mu mu gën fee yàgg yàlla wattu ko yàlla sàmm ko te barkeel njaboot gi te itam fay ñi nga xamante ne bii maanaam euh, ñëpp euh, dugal nañ fi seen loxo te ñu war a fexe ba mboolem ñi fi jaaroon dégg nga te am fi ay bor yu bari yu ñu war a fay ñu góor góorgóorlu ci ba lépp loo xamante ne bii ñu ngi ko jëmee ci daara ji ci yeesal bibliothèque bi ak lépp maanaam ñu mën koo def beneen casquette bi mooy xëy na kenn ku ne xam na ne màggal gi mooy événement bi nga xamante ne bii bi gën a mag maanaam wala bokk bokk ci yi gën a mag ci monde islamique kon bu ñu yàlla cëralee ñu yor commission relations extérieures et religieuses nga xamante ne bii mbooleem gan ñi nga xamante ne ñooy jóge bitim réew di ay kilifa ay borom xam-xam ak itam ñi nga xamante ne bii ñooy euh, corps diplomatique bi nekk fii Sénégal ñëpp. ñuy dénkuñu ñu ànd ak ñoom di di ko euh, saytu te mu xaddimatu xidma nag am ci rôle bu mat sëkk ndax saa bu gan ñi ñëwee lépp fa mu commencé sax ñi nekk ci ñoom te nekk ci ci commission bi maanaam suñu liggéey duggante na boo maanaam loo xamante ne bii la ca aju lépp ak bu ñu ñëw ci jumaa ji dégg nga di ko siyaare si dégg nga ci ñoom lañ koy jaar seen laaj mi la ñuy woo waaw si ñaari laaj yi kenn lañ ci woo bu ko defee maanaam ñu organiser ko ñu teeru leen ñu teral leen kon tey bu ñu fi bàyyee xel barab boo xamante ne bii bu dikkee dinañ fa mën a toog mën a waxtaan ak ñoom mu mel ne yañ bàyyi fañ jóge loolu itam kon lu am solo la nga xam ne dinañ ci gën a dañ ko gën a xóotal ba ren ñu appliqué ko nga xam ne bu bu ñu ñëw dégg nga njëkk jaar fii mbaa ñu mujje ko te tey nekk ci seen loxo ndax wax dëgg yàlla lu xat xat xat même julli ajjuma gi ci boppam bu ñu leen wooyee rek ñu recevoir gan ñi ñaata lañ la ñuy wax bala ñoo ñëw dinañ fekk li mu xat xat xat kenn ku ne boo dikkee ñu jox la sa place kon loolu liggéey la organisé ñu ngi leen di sant te itam noonu noonu dong la ko la ko sëñ bi bëggee di ñaanal Cheikh Mor Mountakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér te ba yéene yëpp maanaam te gannaaw moom li nga xamante bi moo sosoon fii dégg nga bokk na ci ab cëram la koy gën a firndeel maanaam maanaam gën koo yokk moom si moom la jaare ci loxoom kon ñu ñaanal ko bu baax moom itam yàlla bàyyi ko fi te fay mboolem ay kilifaam yoo ko jiitu woon ñëpp bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbi wa xadimi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk yi xam naa kàddu yi du gudd waaye ñu ngi nuyu bu baax alxaaji Mbàkke Jaxate di ko ndokkeel ci liggéey bi di ko wax ne lii lu tuut la ci lu baree bari lu mu yàlloo lii lu tuuti la ci kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko doole ziara di ko ñaanal di ñaan te ñëpp ñaanal su bam féq aw fanam bu ko kattan doole barkeel liggéeyam ndax liggéeyam kenn ku ñaanal barkeel ndax liggéeyam barkeel na waaye suñu borom dolli ko barkeel barkeel boobu jàll ba ci njaboot bi nga xam ne ñoom la batal liggéey bi ñu ko ci jàppale kon ñu ngi koy ñaanal loolu bu baax a baax di ñaan suñu borom may ko mu def ko ni mu ko bëggee ba fu ko soob rek ndax liggéey bi rëy na rafet na yaatu na yàgg na wala alhamdulilah shukr yàlla gën a yàgg di wax ni ne daayratul muxaddamatul xidma mi sunu borom tawfiqal muy jëngu ci biir jumaa ji itteem moo di rekk fu mu toll di seet lu gën a taaral barab bi ak lu barab bi gën a lu mu ci gis te man koo génne ci poosam mu def ko lu mu ci mënul mu seet mbokk mu am pësseef moom yaakaar na mën na ko mu sant ko ci loolu ci la jaxasoog Cheikh Amadou Ramin bi Cheikh Chouaïbou ñu ko sant bu baax di ko ñaanal di sàkk mboolem mépp ñaanal ko yàlla sàmm ko te nangu liggéeyam ba mu tàmbaloo jaxasoo ak moom ci liggéey ak léegi noppalu nañ ci lu bari ndax lu ci xas dugg noppam rek dana ko def defin woo xam ni xel sax àggu ca ci wàllu taaral ak pëstéef ak du nangu kenn sax yëg ko kon Cheikh Amadou Ramin moom itam ñu ngi ko ñaanal di sàkk mboolem mépp ñaanal ko nangu liggéeyam moo mu àggale ko fa ko soob ak ñu ngi ko àndal ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziare ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ñu ngi nuyu mbooloo mépp nuyoo bu tedd liñ wax doy na sëkk daanaka amul luñ ciy dolli luñ ci dolli te xajaman lay lay bëgg a doon daanaka waaye dañ ci jax kàddu yu seede yu gàtt rek ak ak cant di sant sëñ as jaxate bi nga xam ne daara ji si ñi fi toog ci jotaay bi yaakaar naa ñi njëkk ñi si gën a yàgg laa bokk ndax boo fi ñëwee léegi juróom fukki at yi juróom benn fukki at manqué ay weer lay manqué naa ne ku dul sëñ Cheikh Bousso rek fi ñi ci ñi si fi jëkk juróom benn fukki at ci ren ji yu manqué ay weer am naa ko ci daal sonn na ci man lool ci ñi fi njëkkoon ñi ma bokkal waajur it suñ andi leen fa ku sëñ Mamor foog mu fekk sëñ bi nag daj na ci man lu ne sonn na ci lool jéem jàngal na ma lu ma xam lu ne fondation bi ci moom la jógee mooy def ci man bëgg xam ak nangoo jàng waaye nag dama am handicap mooy mënumaa xam dara daanaka waaye daj na ci man lu waaye lu ma xam rek mooy fondation bi moom la lu ci teguwaat doo ci tegu kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi te guddal aw fanam te liggéey bi boo ma fi sëñ Fallou andi itam lam ma doon wax benn ndigal rek la ma daa digal ci àdduna bu ko mos a wax ne lu ma ko mos a wax rek mu ne ma jàngal lu ma ko ñaan jàngal da am bokk na ci bi mu yóbboo sëñ Modou Xabaan mi nga xam ne ñoo bokkoon nekkoon kër Baye sëñ bu sa ilimaan fa laa tàmbalee bokkaat moom fekkaat ma kër sëñ As ma ko mos ma yóbbu makk ni Xabaan benn baat la may wax dem makk kenn yóbbu makk maa fa yóbbu sama bopp musuma wax daan yóbbu wala des na yóbbu da nga dem lu weex li ci gën a doy waar bi ma demee jàngee Égypte yëf yi xaw a dang lool man musuma bëgg a dem Arabie Saoudite Égypte laa bëggoon a jàngi feneen waaye yëf dang ma euh, def demande mu jàppandi lool ndax lañuy laaj kay dañ ma laaj yëpp joxewu ma ci wenn ba bi ci gën a doy waar sax mooy li ñuy wax shahadatu euh, tazkiya dañ ma wax ne kilifa gu mag la ko war a bindal nga déposé ko mu joxe yëpp bañ a jëm ci boobu dara bulletin de naissance bi ñu laaj sax aw ko joxe wu ma dara dama bind ay dara rek joxe bi ma demee bàgg ñu bind na char tazkiya Cheikh Abdoul Aziz benn Baas moom ma ko bindal te ba tey mosuma koo gis boo fa demee seet yu ko loolu lañ def ci kayit yi xam naa dañ ko def kii bëgg maa jël rek kon nag ñu ngi sant sëñ bi bu baax a baax tey ñaan yàlla eggal ko fi te xam ne lim la ko sëñ bi doon def loo daanaka daara ji xam naa ne tuuti la biñ ko tàmbalee ay lu ne rëbaa ci teg ñëw ci ci loxoom fii nag bari mu fii tànk daa man ci kër ga laa nekkoon muy jànkoon jànkonteeg man di jéem a def ci man alxuraan man dara mënut dugg ci sama xaw ma dara man maa xam dara maa jafe lool waaye nag ba bëgg xam-xam ak nangu cee sonn moo ko def ci man kon nag maa koy sant bu baax a baax tey euh, ndokkeel ñi fi nekk ñi fiy jànge di leen xamal ne li ngeen di def mooy li gën ci li li ñuy def lépp ndax yonent bi daa waxoon ne xayrukum man taallama alqurana wa allama loolu moom lay néew néew mokkal mokkal naa ko yéen ñi jàng alxuraan ak jàngale xam-xam te di ko def fii ci barabu sëñ Tuubaa bi nga xam ne dëkk bi lii da nga taxoon sëñ bi sanc ko sëñ Tuubaa sanc ko woon ngir lan lu ci dolli ko rek da ciy yokk waaye xam-xam ak jàng ak jàngale ak yara rek taxoon sëñ bi sanc ko bàyyee ñëpp lañu am beddi ko fépp ñëw fii nga xam ne dafu naqaree nekk la boobu di ab semi désertique daanaka dara nekku fi kenn du fu ñuy jublu amul lan lu fi xëcc nit ñi mu ñëw beru fi ngir di fi yar di fi jàng di fi jàngale ba tey lii lépp nekk ci kon nag war nañoo bàyyi xel bu baax a baax ne li nga xam ne mooy fondement dëkk bi te moo ko tax a taxaw te feeg ñu ngi ciy dox rek dëkk bi gën a dem mooy jàng xam ak yar ak jub leneen lu ci nekk rek da ca ko te nag wolof yi dañuy wax ne ku fàtte la la faloon folli ko dala yomb ñun ñi nga xam dañuy xool di tudd dañuy xooli sëñ Tuubaa war nañoo xam ne sëñ Tuubaa du dara lu may sëñu daara képp loolu ba leen ko ci kon nag ñu góorgóorlu ci daara yi bu baax a baax ñu ngi sant ñëpp mënumaa wax nag euh, li may wax it li ñuy wax it na sëkk kon nag ñu ngi sant ñëpp te di fàttaliku nag suñu mbokk ma di suñ xarit di suñ wettal di suñ doon remi sëñ Maam moom dong laa fekkoon ci kër sëñ as moo fay nekk yaakaar naa ñoo fi jiitu bariwul euh, xaj na ñu ko jiitu waaye kuréel moom rek foog ma fekk ci ñuy sant Mbakke kon nag ñu ngi sant bu baax a baax te di ko ñaanal tey ñaan sàkku yéen ñëpp ngeen ñaanal ko yàlla dolli ko leer ak yërmande fa mu nekk ñu ngi sant mbooloo mépp leen gërëm sama teewaay bi nag mooy ba ma fay teewal sama bopp ndax noonu ma ko wax boo ñëwee si daal jeg léegi juróom benn fukki at bu ma tuuti ay weer ci manqué te ñoo fi nekkaloon ñëpp bari nañ boo ne teew naa sama jëmmi bopp bi ma ñëw nag waxuma kenn daal teewal waaye maa leen teewaale sama teew mooy seen teewaay asalaamaaleykum wa rahmatullah